6 juin 2021 fii ci arène nationale Thiam production moo ñu fi woo il est 21 heures 15 minutes dox ci diggante Sokh ak Gamou Gueye mbokk yi Sokh moo wan ginnaaw moo bot gox bi yëpp ndeysaan di laaleeg xale bi nga xamante ne mooy Gamou Gueye boo ko mu toll dem nga jàpp ni Gamou moo ëpp doole wala moo ëpp waaye ñaari mbër fii laale wu ñu mënoo xam topp doole Ousseyn combat baa ñu noonu. waaye ji li ji tey daa neex daa yëngu ba na kii di soq bi mu simee kontaan Gamou Gueye bi mu simee ko kontaan ndax damaa xam ne combat bi yàgg gi mu yàgg liggéey nañ ci liggéey boo xamante ni nii bi mu seen i fans kontaan nañ seen i supporters kontaan nañ amateurs yi kontaan nañ Baye Djili fi mu toll ñoom ñaar ci des Baye Djili ñoo ngi xoolante ci biir bët waaye defe naa ne. bàyyi ji li li faaw mu am xeex sooxu Gamou Gueye Gamou Gueye ku ko yeb da koo fekk muy nalaw bàyyi ji li ji dina neex moo soo soox koy xool ci biir bët le ato bi soo yaantoo waaye ñoom ñaar mbokk yi soo yaantoo wuñu bu fete li tàqee gëm naa ne duñ fi guddee le bàyyi ji li ñoom ñaar a ngi noonu soox mbépp na léegi Gamou Gueye taxaw di ko déglu ñoom ñaar ku ci nekk day woo sa morom ci xeex waaye ci bëre la combat bi di mujj Gamou Gueye xale la boo xamante ni nii mu toll doole ji ëpp na noonu soq nii mu toll bëre naag mbër biir tëngeej ndax soq bi mu duggee tëngéej bëre ki nga xamante ni mooy doomu dàngu doomu dàngu da koo daan fële ci stade Diop Iba Mar mu ñëwaat ne erreur laa defoon ci soq ci gàmm ci doo doomu dàngu erreur boobu tey dama koy rectifier ci kaw Gamou Gueye Gamou Gueye ni ko gàmm fi la doomu dàngu jaarle man foofu laa lay jaarale Sokh dina nangu loolu wala du ko nangu mbokk yi xool ñoom ñaar fan la ñuy mujj ba xam combat dina yomb waaye en tout cas lu mën a xew mooy ñoo nduroo tegtal bokk nañu sëriñ wala du ñàkk ñu bokk sëriñ seen ngemb li Ousseyn. baa ji li ni ma gisee Sokh mii daa mel ni Sokh daa bëgg a dem boo xoolee tànkam boo xoo xoolee moom ci biir bët sax xam ne daa bëgg dem waaye bu demee lan la fay fekk baa ji li. ndeysaan ñoom ñaar daal xam naa ne balaa kenn na dem. da nga xeex ndax combat bi du combat boo xamante ne dañ koy sorxo sorxo wala dañ koy yàqamti li tax mooy combat boo xam ne def na ñaari at parce que préparé wu dañ ko ñoom ñaari mbëri six mois avant soq fekk naa ko gambi muy préparation préparation mett ñu ngi xeex dóor daan wala déet daan na daan na ko soq daan na gàmmu gay kàbbu lan a waxoon la sëriñ ba waxoon lan la ma waxoon. soq mooy ma ma déglu